waaw mbokk yi jërë ngeen jëf euh, jërë ngeen jëf di rafet lu baax a baax ànd beeg euh, seen chaîne euh, Tawfekh Production mel ni rek ñu ngi koy defee saa ne rek fii mu ne ñu ngi ànd ak njabootuk sëriñ bi mel ni sëriñ Saliou Ndigal Thioune moom Cheikh Béthio Thioune moo fi indi ay teraanga fii si kër sëriñ Bass Abdou Khadre fii ci Ndakaaru ànd kook ay rakkam yu tedd yi euh, soxna Maamee Cuun laa feggool sama càmmoñ ak soxna Mami Cuun ñoom nag ñu ngi ñëw tey si ndigalu euh, Serigne Saliou ndigal Cuun ngir jébbal ay teraanga ak ay bernde ki nga xamante moo di Serigne Bass Abdoul Khadre yor kàddu yoonu murit waaw soxna Maamee Nda ñu ngeen di siyaare baax naam Cuun jërëjëf Cuun ñu ngi leen di delloo ziar bu wér jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Saliou Serigne Saliou ndigal Cuun yàlla na fi yàgg lool te wér danoo ñëw ci ndigalam ay bernde yu Cheikh Bass Cheikh Bass ku ko xam xam ne dafa bëgg sëñ Béthio lool taxawuñu lool wax dëgg yàlla muy nit ku baax ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barkeb Serigne Saliou waaw benn yi rek la ñu ñëwoon indi si di sant bu baax di sant bu baax di ñaan Serigne Saliou ndigal ci yàgg fi lool te wér barkeb Serigne Saliou. tey lan nga yëg tey ba nga jëfee ndigalu Serigne Saliou ndigal ngir nekk ci ndigalam ngir jébal ko sëñ Bass. li ma yëg tey day mbégte l'histoire se répète ndax nii la ñu cheikh bi daan yabalee ñu koy indil Cheikh Bass. kon moom bu fi toogalee sëñ Béthio yabal ñu ñu indilaat ko Cheikh Bass danoo yëg lu rëy rëy rëy danoo santaat bu wér a wér di ñaan ñu yàgg ko fee fekk yàgg ko koo jëfal ci barkeb Sëriñ Saliou waaw bëgg nañ lool. waaw ba fekkoog sama sama ndeyjoor soxna Mamy Thioune soxna Mamy naam Thioune ñu ngi di siyaare baax a baax. soxna si dan nga yëg rek tey ba nga ñëwee tey fii si kër sant lool sant lool ñu ngi sant bu baax jërëjëf Sëriñ Saliou jërëjëf Sëriñ Saliou. donc wax dëgg yàlla ñuy ñaan Cheikh bas mi ñu yàgg ko fe fekk taxawaayam tamit yàlla na yàgg te sax sëñ bas nag kóllëreem ak sëñ Béthio loolu kenn du ko wax loolu defe naa ne ñëpp xam nañ ko muy jëmm ju baax ju joo xamante ni daal foo ko natt weesu na ko sëñ bas nag moom ku indi ay bernde ci moom moom di nga sax jaaxle parce que moom mooy borom bernde yi sëñ moom ku fekk fa nga nekk fa mu nekk moom dalay bernde bernde bernde ba da ngay rus kon lii ñu ko defal sëñ Saal defal ko ko xeeb nañ ko lool xeeb na ko sëñ Sall def xeeb na ko lool ñoo ngi ñaan yàgg ko ko defal ci barkeb Cheikh Béthio jërëjëf. jërëjëf Thioune mu nekkoon njabootu sëriñ bi rek ñoom ñoo te indi bernde yi fii ci kër sëñ Bass Abdou Khadre fii ci Ndakaaru jërë ngeen jëf. waaw euh, mbokk yi jërë ngeen jëf baax a baax ñu ngi fii si kër sëñ Bass Abdou Khadre rek euh, ñeer am ngan gi mu am fii ci ndakaaru mbokk taalibe yi jóge fu ne waaye nag ñu mel ni nag waa kër sëñ Bass Thioune tamit kenn demul ñu des ci li nga xamante ni moo di boobu le ngan euh, ginnaaw jëf ji nga xamante ni sëñ Saliou Ndigal jëf na ko ànd kook njabootam gi ànd kook ay rakkam yu tedd waaye nag ànd kook ay jëwriñ mi ma mën ci sepp kenn nekk jëwriñ universel Abdou Guèye Rignane nekk kenn jëwriñu sëriñ bi waaw nekk jëwriñ sëñ Béthio fële sa Paris ñëw fekkee nag euh, jëf ji waaw jëwriñ maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi dégg ziar bu baax naam Thioune jërëjëf Thioune. Mm-hmm. seet nga fekkee jëf ji nga xamante ne njabootu sëriñ bi suñuy tëru sëriñ Saliou Ndigal Thioune tey lan nga yëg tey fekkee ah, cant ak cant gu rëy ngaa yëg ci tawféex gu ñu amati sak ak ndimbalu sëriñ Tuubaa gi ñu amati ba fekkee tawféex gii nga xamante ni sëriñ Saliou Ndigal Thioune képp ko xam xam ko ci borom bernde moom moo togg ay bernde indi ko sëriñ Bas ànd kook rakkam yu tedd yi ñun nag dañoo am taw féex rek waaw sëriñ bi daal ñu si booge muy ak cant ci ñun ñu ko koy sante di ko ñaanal moom sëriñ Saar Ndiga mu yàgg fi te wér li nga xamante ni ak cant ko jàppee sa yëg-yëg principal ci ci sama yëg ah yëg-yëg de mooy xamewaat naa ci nii sëriñ becc di fi jug waaw loolu laa ci xamewaat sëriñ becc du fi jug te daa feeñaati ci jëfu sëñ Saliou Ndigal Thioune bii diggante sëñ Bas ak sëñ becc loolu àddina xam nañ ko ni sëñ Bas bëggee woon sëñ becc tey jëfu sëñ Saliou gi daa wanewaat ni sëñ Béthio saf na sàpp ci sëñ Saliou ndax ku xam sëñ Béthio xamee ko borom borom borom togg borom bernde borom joxe ñam tey sëñ Saliou bu dellusiwaatee def lii fii ci sëñ bas ah daa def nga waajuram ba xam rek muy ak cant waaw ñun nag dañ ci dañ ci dañ ci sant ci bokk giñ ci bokk waaw waaw. noonu sama kàddu gu mujj rek yow ngay ngay jëw nañu sëriñ bi euh, ca Paris sa digganteeg sëñ saalu Ndigal lan nga ci mën a wax tey mbokk internet yi euh, mën ko mën ko xam waaw li nga mën ñu wax ci sëñ Saliou Ndigal Thioune yan témoignage nga ci mën a def yow. sëñ saal sëñ Saar li mu li mu làmboo lépp daa bari sëñ Saar day doomi sëñ Béthio sëñ Saar day xalifa sëñ Béthio sëñ saal day day tànki sëñ Béthio di kàddoom di làmminam di léppam dem ba doon sëñ Béthio loolu nag loolu ndimbal moo fay yóbbu ab jàmm dañ ngay dimbali nga xam ni sëñ beeto mooy sëñ Saaliw loolu dañ ngay dimbali nga yegg ca bu ko doonu woon kon ni sëñ Cheikh mu sëriñ Saaliw demee moom ni sëñ Muntaxa demee ak moom ni sëñ Bass Abdou Khadre moom day sëñ moo tax mu demee moom noonu ak ni mu demee ku dul sëñ Béthio mun a am gi sëñ Bass meg ci sëñ Saaliw wala sëñ Cheikh mu sëriñ Saaliw meg ci sëñ Saaliw wala ci sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér ni mu mag sëñ saag ak yoonu murit gépp ni demeek moom boo amee tuuti seetlu di nga xam ni waaw waaw sëñ Béthio jëfam fës na ci sëñ Saaliw ndigal loolu gaa su jàngatee waaw ba tax na yëpp amaana mu ne su ko wax waaye man bokk naa si ñi sëñ Béthio xamal boo ëggee fi ñuy nekk ci sëñ Saaliw waaw loolu dimbalee na ma ko ba tax na tawféex gii daf ma ci boole rek waaye du woon wu ñu sax xalaat wala wu ñu waaj waaw ñoo ngi sant nag bu baax moom moo ñu dénk daaram ji nekk Paris ay jàmbaar nekk fa ñu ko bëgg nekk fa ñu ko gëm di ko liggéey ñoo fa nekk ay magu murit ñu yàgg ànd ak sëñ Béthio ñu ànd di déggu ndigalu sëñ Sall ak di ànd ak moom cant gii nga xamante ne moom mooy sëriñam di ko jox muy sëñ Cheikh waaw ñoo ngi ci sant bu baax waaw waaw noonu la nga demee. jërëjëf universel naam Guèye moom mooy jëluñu sëriñ bi fële sa Paris tey rek doon def ay témoignages euh, yu yéeme sax ci euh, sëriñ Saliou Ndigal Thioune euh, ñoom sëñ Béthio Thioune